ngi tudd Mamour Mbaye président amical des ASP du département de Mbacké teewaay bi li ko waral mooy euh, amical des ASP dañu amoon initiative organiser ay ndogu indi ko ci mag bi pour détenus yi nga xam ne ñoom ñoo fi ne looloo waral euh, teewaay bi suñuy moyen bopp nag moo jiitu parce que kenn ku ci ne def na sa participation en même temps aussi ñu dem ci chef service yi nga xam ne euh, ci département bépp fépp foo dem am na fa ASP wax ne bu dul benn di ñaar ñi ngi fay liggéey wala ñeent aussi dem nañ fa aussi sollicité leen ñoom aussi ñu indi seen apport boole kook li nga xam ne moom lañ yor ñu defar ci ay ndog yoo xam ne yu mucc ay ayibam indil ko suñu suñu suñuy rakk ak suñuy mag ak suñuy jarbaat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mag bi daal. wax nañ ko parce que dañu nekk ci weeru koor euh, ñu defal ay xéwal yu baax indil leen ko ñoom aussi am nañ yëg-yëg boo xam ne euh, ñaanal nañ ñu aussi. di ñaan aussi suñu suñu suñu suñu ànd bi ak suñu amical bi mu gën a dëgër ba prochaine année yi nga xam ne dañu war a ñëw indi leen ay ndogu mu gën a réussir daal ñaan googu daal gis nañ ko ci ñoom ñu wax ñu ko daal ne jafe-jafe social moom amagul ci pour l'instant nii parce que ñi ngi booloo kenn ku ci ne sa doole bi nga xam ne yaa ngi koy indi di ko apporter moo tax euh, jafe-jafe yi daal gisaguñu ko daal mais au fur et à mesure ñu dem aussi bëgg nañ ñoo ne ci département bi wala ñu bi ñu jàppale ñu boobu pour la prochaine euh, ndogu yi nga xam ne dañ loolu daal ñu ngi koy lancer appel ciment bee euh, ñu ñu ñu ñu ñu demandé ñu pour ñu pour ñu fexe nu ñu leen ci jàppale moo tax aussi ñu ñu indi benn tonne ciment ak kilo fer pour apporter leen ko soutien daal ci suñu lépp mënoon mënoon nañu gën a bëri nii nag mais situation bi nu mu toll la ak ndog yi nga xam ne dañ ko def yaa am na ginaar am na am na am na sauce am na boisson yaa tout daal loo jàpp ne daal nit da koy lekk daal indil nañ leen ko daal ñoom li mu xaalis mën naa koo xayma ne nekk na ay lu mat 700 et quelques mille yoo xam ne récolté nañ ko pour mën a def euh, li nga xam ne mooy ndog yi daal ay Moustapha Mbaye coordinateur départemental des de Mbacké tey day ASP Mbacké ñoom mag bi pour euh, indi fi woon fi benn ndogu mooy activité sociale bi ñu bi ASP yi amoon euh, initiative ñu xalaatoon ci ñu defoon kii bi euh, suñu proposition ñu dem ci mag bi pour indi fi benn ndogu mais ci biir ndogu bi nag a ah, bu ñu ñëwee itam ñoom fekk am nañ fa benn problème bi nga xam ne fekk nañ ko fi muy seen problème fosse septique bi ñun nag ñu ne ah dëgg yàlla nit ki de boo koy indil ndogu te fekk am na beneen euh, jafe-jafe bu nekk foofu nañu contribuer ci lool moo taxoon nag aussi bu ñu indi euh, ndog yi ñu indaale fa benn tonne ciment ak 100 kilos de fer pour que aussi par exemple ñu réfectionner force bi pour mu mën a am ak jafe-jafe boobu pour ñu éradiquer ko ci ndogu yi nag itam comme ni nga ko waxee bi ñu koy initier dañu ne def te yàlla tax def te yàlla tax mi nag ci ASP la commencé moo tax bi ñu ko waxee sax ñoom dañ ko sëkkatoo mais nag les autorités yi nga xam ne ñoo nekk par exemple dans la circonscription du département ñu ne ah ñoom wax dëgg si yàlla kenn ku ne dina ci indi contribution moo taxoon nag euh, autant de chefs de service ñu ngi leen di remercier de passage en passant par le préfet et l' ensemble de service du département ak les bonnes euh, kii volontés yi nga xam ne ñoo nekk du dep dans kii dans le département de Mbacké kenn ku ne wax dëgg si yàlla am na li nga xam ne jël na ko tàbbal ko ci ndog yi nga xam ne moom lañ ko def cible bi nag peut-être yaakaar naa fu ñu toll nii ñu ngi ko wax ne ñu ci mag bi la ñu la ñu la ñu nekk mais am na aussi les familles démunies bu ñu jógee fii dañ koy yo dañ am na famille yi nga xam ne dañ leen a dañ koy yóbbu am na ñi nga xam ne aussi ce des ASP ci ñu décédé au cours par exemple de leur cursus par exemple ñi nga xam ne ñoo nekk ñooñu itam am nañ des des kii euh, yi nga xam ne dañ leen koy jox muy denrée alimentaire danañ ko yóbbu ci famille yooyu pour peut-être euh, dimbal leen ci lool bi ñu defee mag bi ñu def ci ñooñu aussi loolu moo taxoon par exemple ñu ñëwoon fi tey waaw loolu moom wax dëgg si yàlla parce que kenn ko ne yaakaar naa day am action sociale parce que loolu dafa bokk ci euh, la mission de la l'ASP prévention assistance et secours ñun nag peut-être yaakaar naa bii lañ jël mais yeneen département yi am na yeneen action sociale yi ñuy def parce que suñu collègues yi parfois dañu leen di suivre dans à travers la télévision ñu def yeneen action ñi nga xam ne am na récemment rek gis naa bi nga xam ne dañoo def euh, don de sang te yaakaar naa loolu itam ce les mêmes les mêmes activités ñu nag peut-être yaakaar naa ci weeru koor bi bii la ñu tànn quoi. Souleymane Cissé chef de pôle centre ouest. tey li waral suñu teewaay fii au niveau du département de Mbacké du leen lu dul si ndigalu suñu kilifa di la directeur des opérations donc dañ fi ñëw ngir teewee activité gi nga xamante ne l'amicale des di du département de Mbacké. tenir nañ ko sous l'autorité du chef d'unité départementale muy benn action sociale bi nga xamante ni moom lañ sumb si weeru koor gi jagleel ko les détenus de la MAC de Mbacké donc looloo waral suñu teewaay suñu teewaay fii nii donc cette action sociale mun naa ne là c'est c'est c'est une première étape parce que il est prévu aussi bu ñu fi jógee yóbbul ñi nga xamante ni ce des personnes démunies ñoo mooy ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw appuyer leen jox leen ndogu muy deuxième étape la troisième étape également des ASP ont été identifiés am na juróomi ASP yi nga xamante ni dañoo nekkoon suñu biir suñu borom dogal ñu wàññeeku ñoom it boobu ba léegi fàttewuñu leen parce que yéene nañ jël li nga xam moom mooy kit alimentaire lu mel ni ceeb diw suukar ak tàndarma dem yeggee ko seen njaboot gi ñu fi bàyyi. jëfal ñëpp di ziar ñëpp den jox seen wàccuwaay waaw comme ñu ma jiitu ni ñu ko waxee rek. Euh, acte la boo xamante ni dañ koy rafetlu di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ko def muy ASP yi ci seen njiit la coordinateur Moussa Mbaye avant loolu tam maa ngi remercier Cissé Souleymane Cissé bi nga xam ne nekkoon na fi jot a liggéey ak ñoom te ñu def benn jéego bu mag jëm ci wàll social yàgg ñoo def nag ay activité sociales ñoom au delà de du travail qu'il aborde au niveau de l'administration boo xoolee service boo dem toujours dama koy wax liggéey bi ñu fay def souvent ña fa ne sax liggéeyuñ ko li may wax leer na waa département bi leer na service yi fi ne parce que toujours ñu dajale ci terrain bi comme loolu rek yamul foofu ñu yëkkati seen alal liñ dajale moo xam mu bari mu néew ñëw def jëf ju mel nii ci weeru koor loolu sant yàlla la ak ñaanal leen ñu man ko fi ko andi tamit dañ ko andi foo xam ne fu jar a la yamul fii andi nañ fi yu bari ba sóoraale sax côté infrastructure parce que ñoom yàgg nañu am ay problème au niveau des toilettes yu mel noonu kon bu ñu fa indee tamit beneen appui matériel muy ciment ak fer kooku dañu leen di jaajëfal kon ñoom ñu ngi bàyyi xel askan bi ak aussi tamit xam ne administration mënul lépp foofu les personnes de bonne volonté dugal ci seen loxo ñoom nag ku leen gis li ñu def nii yaakaar naa war nga leen ñaan ñu gën a yokk parce que am na ñu leen gën a man te defuñu ko état bi bu ñu fi jógee dañu war a ñëw action sociale man dama dem ba man maa nekk cas social kon ñoom xam nañ loolu action social bii dimbalee man maa yooyu ndimbal ça il faut oser le dire te ñoom xam nañ ci dara souvent ñu ñëw fa gis ñu fay jël si ndogu nu muy demee ay ay famille ñoo fay ñëw yaakaar ku leen dimbali te manuma ko état bi ma fi teg tamit joxuma moyen yu ma ko defee kon lii dañuy ñaan yàlla ngeen gën ko man kii woor ba ngoon bëgg a dogu amul lu mu dogoo man li may séddale bi ngeen fa ñëwoon moment boobu sax la baaxe woon mais nag yéene ji mat na da ngay gis ku góor ku woor ba ngoon amoo loo yóbbul sa njaboot ñoo fay daje ma leen koy séddale souvent damay dem di jëli ji ay ndogu jumaay ja même ci ma yónni dem mais tey démb laa leen annoncé na tey ndogu spécial ku ku amoon lu ndaw tamit tey bu soobaa ba ñëwee na am lu bari kon daal j'en lance un appel ci les personnes de bonne volonté ñu gën leen dooleel tey ñaan lii muy pas boo xamante ne bu ñu ko mas a bàyyeti lu baax boo koy def boo ko defee benn yoon mu réussir rek continuer kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla fay leen gën gi fay ci weer wi nii en tout cas daal remercier nañu leen loo xamante ne mënuñu ko wax sax nous sommes émus